huda ila alhamdulilah wasalaatu wasalaamu wa ala wa sahbihi wa mawala asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu euh, ñu ngi leen di nuyu ci turu sunu kilifa gi teew di sëriñ Modou Xaban Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Fadil mu di leen nuyu ci turu kilifaam di euh, Cheikh Mouhamadul Muntaxa al xalifatul ñu ñaan suñu borom muy may ko fan wu gudd ak wér ba mottali yéeneem yëpp mottali ñu yéene liggéeyal sëriñ Tuubaa lépp te ñu ànd koog moom sëriñ bi nag di wax ne ci kàddug sëriñ bi mi ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di jaajëfal Cheikhul Khadim sant yàlla ci li nga xam ne mayoon nanu ñu taxaw fii di gunge xujaaj yi nga xam ne ñooy jóge fii war a dem baytu laay xaram war joxe seen faratay xaj yàlla baaxe leen ñu dem ci jàmm dellusiwaat ci jàmm jóge woon fii ci xaadimu rasul wàcc ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jóge wàcc ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wàccaat ci xaadimu rasul loolu nag doon cant yàlla gu rëy rëy rëy rëy goo xam ne sëriñ bi mi ngi koy sant yàlla ci jàmmal gi mu leen jàmmal ak xéewal gi mu leen defal ba ngeen mën a dem joxe ponk boobu ci na ngeen ko bëgg a joxe dellusiwaat ci jàmm kon nag mi ngi wax ne mi ngi sant sëriñ Moulay mi nga xam ne moo taxawal kon euh, assance bi am itam xalaat bu rafet bii di jële xojaa ji fii ci xaadimu rasul di leen yóbbu ci rasulullahi salallahu alayhi wa sallam min al xadimi ila al maxdumi summa min al maxdumi ila al xadimi noonu rek la koy doxalee rek ah. def nañ ko addee sëñ ah, loolu nag mooy li mooy li gën a sakkan te ku ko def sëriñ Touba moom ko xas booleeg moom rek am nga lu dul jeex kon nag sëriñ bi nee na mi ngi leen sant bu baax di leen gërëm te di leen ñaanal aj guñ nangu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne aj guñu nangu dara du ak payam lu may aljanna loolu yàlla nañ ko yàlla defal ñun ñëpp tey ñi nga xam ne ñoo fi des te bëgg a dellu suñu borom may leen kattanu déwén li jàmm ñu dem ñi nga xam ne ñoo demoon te bëgg a dellu itam suñu borom may leen kattanu ñu mën a dellu yéen ñi nga xam ne yéen demoon itam suñu borom rappal seen i kaara defal leen jàmm ak tawfiq ngeen fekkaat njaboot gi ci jàmm ak sutura ak bi na yéen ñi jóge foofee baax ko ñaane leen ñaan leen leen yéen ñëw rek ñoo leen di nuyu di leen ziar di jiital ci nuyu bi sëñ Mountakha Mbacké mi nga xamante ni mu woo fi nekkal Serigne Touba di ko sant bu baax di ko ñaanal gudd fan ak wér di ko sant bu wéere wéere wéere di ko sant ci gunge bi mu ñu gunge ak ganu gàttandu gi mu ñu gàttandu di sant Serigne Touba Mbacké bu baax ndax dem nañ ci jàmm ci xaritam ba yonent bi sallallahu alayhi wa fa la ñu wàcc foofee lañu ñu wàcc Médine siyaar ko jox ko yóbbanteem ndax képp ku fi jóge dem màkk dem ci yonent bi yóbbaale nga yow eh, nuyób Serigne Touba ñun taalibe loolu rek lañu am te moom la ñu gëm te lañ fa fekkit weesu eh, kenn mënu koo nattaleet li fi nekk lañ fa fekk mu ngi fii kon nag dañuy dolli di sant yàlla bu baax yoon wi nag ànd taw feex ànd ak jàmm jege nañ barabu siyaar yëpp siyaar nañ fépp dem nañ fu ne wax dëgg yàlla ñi nu àndal di compagnie bi nga xamante ne ñoo nu yóbbu agence bi nu yóbbu di Xaadimu eh, Rasuul ah yal na yàlla yokk ko ba mu yëg ko ndaxit it ah eh, sàggane wu benn yoon dugal nañ ci hôtel yu baax jox nañ ñu toppatoo nañu ñu ngi doon ci ci eh, toppatoo suñu yitte ak suñuy soxla wax ji nag danoo sonn mënuñu ko wax lépp waaye ñu ngi sant yàlla bu baax di sant Moulay di sant waa dëkk bi wax dëgg yàlla ndax Touba gi ñu am. ci lañ ñu gunge ci lañ ñu teeroo jërëjëf jëf ñoo ngi leen di sant bu baax yéen itam yéen ñi ñëw di laajte liñ fa daj ak liñ fa am sant nañ yàlla bu baax nag ndax ànd nañoo ak Serigne Touba dem ànd nañu moom dellu si ñoo ngi sant bu baax a baax wasalaam loolu rek laa amoon ci lu ma xanaa sëñ Samb. am na ah, kay wax ji daal di moom xanaa di gën a sant Serigne Touba bu baax a baax ndax mën nañu ñu bu ñu defee lii rek Serigne tubaa maanaam xemmeente Serigne Touba ak xemmeent bu ñu xemmeent Serigne Touba moo taxoon ñu dox yoon wi kon dañu ko defee rek liggéeyub Serigne Touba di sant nag ki fi nekkal muy sëñ sëñ Mountakha sëñ Mountakha xalifa général ñu ngi koy sant bu baax di ko sant bu baax te xam ne yoon yi moom lañ ko doon demal ban demee tim macha allah lu mas a yaakaar rek ban demee gis nañ fa lu raw lu raw suñ jox ci lan fa gis heure boo fa demee rek da nga xam ne Touba gi kon moom doom la ci mag bu mat sëkk ci doxalin wi ak plan yi ak lépp ba tax na daal nañ gën a war a góorgóorluwaat sant Serigne Touba te fas yéene liggéeyal yonante bi nag ndax loolu rek mooy li fi nekk kon ñu ngi leen di sant ndax naaju dafa xaw a tàng te dañoo toll waaye ñu ngi leen di sant bu baax yéen ñu ngi jël si fii euh, teeru si na te yéen a dugg loolu tamit ngi leen di sant bu baax di dellu santaat Serigne Touba bu baax a baax ci liggéey bi xam ne moo ñu ko liggéeyloo ñu dem ak jàmm dikkaate jàmm amuñu fa benn problème benn problème di gërëm Moulay Moulay Seck Moulay Seck mooy agence bi ñu yóbbu woon Touba kon ñu ngi koy sant bu baax dara manqué wut dara manqué wut nañ ko bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatulah. nañoo ak jàmm ñëw ak jàmm ah tubaarkàlla xaadimu rasul wayaas daal man ko ma tàggu cay dem màkk man la dem ci amuñu benn problème toppatoo nañ ñu toppatoo bu war liñ war a def lépp suñu giddi yi ñu def suñuy farata ba mu jeex kon nag ñoo ngi ñaan rek ci daraja yi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baaxu Serigne Touba mi ñu jóge woon ca dellusi bi yal nañu yàlla boole jàmm. luñ fa ñaan yal na ko yàlla nangu te boole na ko jullit yëpp ak bokk yëpp jërëjeen jëf kontaan nañ lool aj gineex na lool metti na waaye neex na. waaw waa assance bi nag moom ñi ngi leen di ñaanal jàmm rek yàlla ñu yokk ba yëg ko ndax daal sonnuñu jàquñu jaaxliwuñu fu ñu war a dem dañoo boole ñoo xam ne ñoo ñuy teg ci kaw yoon lu ñu war a tawaaf ñooy ànd ak ñoom àndak ak ñoom daw sa faang maru ñoom dem sànni jamar kullu siyaare fu ñu war a dem rek dem nañu fa te ñooñu fa yóbbu suñu bagage laaluñu ko xanaa ci aéroport bi lañ sonn waaye bu ñu wàccee dañuy wax dem leen bañ wàccee Medinatul Munawwar dañoo jox suñuy caabi ni dem leen seen hôtel naski si bagage yi fekk ñu fi tey ci aéroport yi noonu lañ def moom daal buñ sonnee ci aéroport yi lañ sonne na xat-xat loog rang waaye ñoom kat luñ bàyyi luñ lu ñu war a defal rek defal nañu yal na leen yàlla yokk yokk nu yokk jullit bi ma